ma doom jile eh, di sering Moussa Sey sering Moussa anak dama koy bàyyi eh, mu ubi lata mu ñuy fekk si ci eh, plateau bi ñuy tok di waxtaan sëriñ Moussa maa ngi nuyu di la ziar lan ngay nuyoo sénégalais yi ñuy seetaan auzu billahi mina seytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina seytaani rajim ربي أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرج أبدا بهذه المخدمة وأدخلي سرورا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بيا كل من أحبك وكل من اقتنى بها أو أنا على يا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم الإله وهو رحمن وهو رحيم خاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع صفي المذهب لتابي سيدنا محمد الخير الورى من خادلي خدمته وصورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا سفينا المخدم عند الذي تسكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الآد واسع وجنتي وعليه وصحب الأبرار في الغال والمال بتكرار هذا وخزدي خدمة تخر عين النبي بها كما تبرو نويت من ذا العام قدمة تسر مصافا بك في تماسر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهي كفاني صدمة أحمد على خروج من دار وكل سوء وناء وخرر أشكر شكرا يجر زيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وصحصحل رب الورى وصحصحل خرورا فخنتنا زمن لذي المخدمة مصليا بعلى من خدمة مرتجيا كوني خديما أسنا وأن أفوز بالمقر الأصنع ملتمسا من مالكي أن ينفع بالذي يريد أن ينتفع جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يوسف نظما مباركا يقي الأذى كما الذي كابنني عذابك أرجو ستنا عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميت جالبة المراخب في أجل كأجل لراخب سميتها جالبة المراخب في عجل كعجل لراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع صفاي بيتنا وخائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي wa والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا jaajëf sëñ Moussa ñëwal nag toog ñu waxtaan tuuti ni nga yibbee neex nañu xol nanyu sedd ci Eh, kay toogee ni ni moo nga jégué ma señ Moussa bismillah nga doxale sante señ touba mbayanti yaa ah, mo baye la gënu yok ñi eh, lay sétane sa papa yek sa mak yek Sénégal yëpp waa asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi man señ Moussa sey ma ngi leen nuy bax di leen ziar mm-hmm. di leen jox seen wàccuwaay di la ziar bax sa papa Pape mm-hmm. Cheikh mu ngoog ndax nit ko baax nga. waaw bég naa tey ci euh, teewaay bi dama cee bég lool euh, ma bëggoon ci profité ñu waxtaan yéen sénégalais yi gën a xamante yow. Mm. ci juddoog ci parcours ci daara ji nga jaar ak ñi nga def ba dugg ci euh, d'abord ñaataat nga am. man maa ngi am 15 ans. 15 ans nga am. Mm. waaw fukki at ak juróom. kañ nga dugg ci daara ji. man waaw ci daara ji. ndax ba ma dalee dugg si daara gi léegi 2016 la. 2005 ak léegi. 16 ah boobu yaa ngi amoon ñaata at xanaa. man de damaa mënta calcul waaye quinze ans nga ab léegi. donc 15 la naka la naka la demee woon da ngaa judd fekk say waajur ne ci daara yi wala nan nga def daal ba dugg ci. lii laa ah. bëgg nga nettali ma. man moom. Hmm? peut être indiluwaat ah, tegal ko ko nii rek garaawul tegal ko ko nii waaw Ndoye jërëjëf waay. man moom. damaa judd fekk samay waajur di jàng xasida ah. manit it ma judd bëgg ko lool ah. nekk si nak ndax nit ñi ñëpp sunu kër ah. sunu xale yi sama rakk yeeg sama mag yi yëpp mm-hmm. képp ku siy judd day fekk sama pap si biir kuréel gi ñu woo ko ñu ne ko soxna si am na doom macha allah mm. mais est-ce que yomb na parce que ñoom ñi nga bokkal ñëpp yow lañ ci gën a ràññee te magoo ci waaw maguma si mm. ndax ndax man am na taaw Sëñ Fàllu mhm. man maa toog Sëñ Soxna bi sama rakk la waaye suñu kër daanaka ñëpp ay jàng mhm. xale yeeg mag ñeeg ñëpp ay jàng ñëpp ay jàng fan ngeen dëkkee ñu ngi dëkkee Géejawaay Asegna Asegna kon ba nga nekkee tu ba tey amul benn dëkk boo dem pour jàng fa fii dakaar gii Asegna gii nga toog jàng fi ba mën fi li nga fi man ah kay dem naa Touba ah dem nga Touba jaar naa Touba daa ah, maanaam tarbiyu waaw ñaata ñaata ñaata ñaata temps daanaka ay deux def nga fa ay ñaari ay ay ñaari at yooyu. donc bi nga juddoo ba tey ci daara ji rek nga nekk dugaluñ la école tubaab comme yii ñuy def nii ci dëkk bi. ndax man sama maam. Mhm. jur sama papa. Mhm. daanaka farataalu woon jàng tubaab. Mhm. moo tax sunu kër daanaka kenn jàng fa tubaab. macha allah ndax man moom ci alxuraan ji laa nekk. ak xaside ak xaside yi. ndax mën nga ñu nettali sa dund ci daara ji neexoon na lan ngeen lan nga fa daan dund. ah dundee daara ji moom comme ni ko ñëpp di dundee rek. Mhm. ndax dinañ la dóor. waaw ah. ak koo mënti doon tamit. waaw ah, dañ lay yar. ndax njàng moom noonu la. Mhm, dañ lay yar waaw ñu ngi si de incha allah rabbi ndax njàng moom. Mhm. metti na mettul rawatina ngay boole njàngum xasida ak njàngum alxuraan. ba pare war a nekkaat si répétition yi. Ah. di xëy di dem programme. loolu lay xaw a gàllankoor sax yenn saay suñu jàng ah. ndax programme yi ngay dem yu si bari mooy loolu ndax ñun daanaka dañuy am ay jafe-jafe ah. pour bu ñu waree génn dem programme mais naka naka ngay organiser woo war a war a dem ci daara ji jàng alxuraan war a maîtriser xasida yi ñu ne la ñëwal programme bi sàngam nga jóge fa daw ñëwaat naka naka naka naka ngay defee sa emploi du temps ah am nga dañuy xëy suba gi mhm. jang alquran bu ngoon ge ñu nek si répétition yi mhm. su fekkee nyu, dañoo dem ba programme ñëw mhm. dañuy dem programme buñ fa juggé ñew àggali suñu jang ak ah manam lepp rek da ngeen ko organiser yow ak sa staff sa staff bi ñan la sa ay mag waaw wa kër seigne Moussa sey wa kër seigne Moussa sey sama soppe ah wa kër seigne Moussa sey bu Dakar beeg bu Touba ok ñoo lepp lu ma bëgg dañ ci taxaw yër yi may solak anniversaire bi may taxawal ak mhm. ñep dañuy ñew japp ci Mhm. kan nga ñëk dem programme. bisu gamu bisu gam la woon. bisu gàmm nettali ma bis bobu nga nek tout tànk ñu ne am nga programme nga wara dem ci programme ba wara taxaw ci ay jooni nit wara sikkar ci seen kanam. ah lol de ba mu ko njëkkee def kontaan naa si lol lool ndax man daanaka bañ nekké xalé mhm. lañ commencé di fontoo jang mi. Ah. fépp foo ñu fekk dañuy nek takk ay matériel di jang def yoy yep <laughs> di kurel, di la ilaha illallah te lan motax ñu ñu tan la di la eh, teg ci kanamu ay programme te nga am ñeneen ñoko ko bokkal loo yàgg bëgg la bi nga nekké bi nga nekké xalé ba tay li yag bëgg la ta tamit man mi ni may def di ma ci ay programme yu mag yooyu yëpp jàppee mook sama jëm damay mm-hmm. xam ne lépp Sëñ la. lepp Sëñ touba la. Mm-hmm. mo la ko liggéeyal. mo mo liggéeyaloo. répétition yi naka lay demee. ah répétition yi dinañ wax ne metti na mettiwul. Mhm. ndax sama waajur moo may répéteel. Mhm. te répété bu jotee wala njàng. Mhm. dina indi beneen kanam. Ah, maanaam day jël diggante baay ak doom teg na le. ok ok indi diggante nit ak moroomam ak lig bokk suñ tubaa loolu lay indi. mooy fent yaay fent wala lépp rek dañ koy teg ci xasida yi. waaw day ñëw. jox ma xasida gi jox ma air bi ma war répété ne ma su ma ñëwee na moo ko balaa moo ñëw naas def sama poseef ba moo donc da fay bàyyi dem mm. yow nga concentré wu bu baax ba xool euh, li ngay li ngay jàng pour mu mën a mokk ci sa ci ci sa ci ci sa bopp sa moroom yi naka ngay dundee ak ak ak ñoom ngay dox ci mbedd bi ñu lay xàmmee nga dëkk ci koñ ñëpp xam ni sëñ Moussa Seye moo dëkk fii nga nekk tout tànk am ay moroom euh, yow ñoom naka lañuy mel ak yow naka la ñuy comporté woo daanaka ñoom moom daanaka dañ maa bëgg ndax ñi ma bokkal koñ daanaka tout tànk yi dañuy ñëw kër gi bari di ma seet si mhm. te tamit man su ma gisee loolu day tax damay gën a soññ mhm. ma gën a góorgóorlu bu baax a baax mhm. ndax loolu nekkul dara mais ab soññee la. ab soññee dañu lay soññ nga dem nag ba bëri ci loolu ay soppe sa digganteeg sa soppe yi sa digganteeg sénégalais yi parce que Sénégal yëpp ku ci nekk jàpp na ni moo la jur lan moo ciy sa xalaat. waaw ah, soppe yi moom wax dëgg yàlla moo seen fay. Mm-hmm. ndax nit ku la bëgg moom day wax ne yëg rek moo koy fay. Mm-hmm. ndax man sama téléphone papa bi yàlla xam na ni ay messages yu dul jeex. Mm-hmm. waaw te maa ngi leen di jégalu bu baax si yenn saa yi yéex a répondre bi ma yéex a message yi ndax damay nekk si alxuraan ji nekk si xasde yi xëy nekkaat ci programme yi te loolu ku ne xam ne day metti day metti de doo mën a wax da ngay mhm. am na ñoo xam ne buñ na envoyé message tontu wala duñ ko gisee noonu waaw ah, wala ñu supprimer ko ñu ngi leen wax ñu ngi koy jégalu bu baax a baax wax dëgg yàlla mhm. programme yi yenn saa yi day dem ba fajar waaw safar gi rek yeen say da ngay tok jour bo xamne bis bu nek di nga jang lu mat ñent programme ñent programme xana ba fajar la léegi nak bo joge ci programme yi après da ngay nel di nga nelaw di di nga nelaw lu beuri di nga nelaw wa sa so joge programme di nga dal mhm. ba pare sam papa yeen say da may wo may ñew di répondre message yi par ben ben par ma sha allah téléphone am bi ke kibee sax di nga xamne message yi bari na ok maanaam moom dal yaru militaire la koy def waaw <laughs> lan mo la gëna neex ci li ngay def ci métier bi ci carrière bi nga dugg lan mo la ci gëna neex ci ci ci ci li ngay def ni lan mo la ci gëna neex. lan mo ma ci gëna neex. ah li ma doon ndaw. di jang khassida waaw ñi bëgg ma. waaw te tamit lool lepp daanaka man intéressé wu ma. Uh-huh. li intéressé daal moy bi rek. rek ak samay soppe. Uh-huh. lool dong moma intéressé. Uh-huh. di ñaanal sama wajuru goor ak sama mébét yi ma am si ñoom. Mhm. si borom may ma kattan ma àggale ko. macha man ci xas dee rek laa ko yaakaar. macha ndax ñun dañuy war a dem ba war a dem programme. Uh-huh. problème oto la am. da ngeen da am problème mu oto wallaay problème oto la am dañuy yéeg ak wàcc ta ku nga xam na ni metti day metti waaw moom mii wallaay lazim bëggal naa ko oto bëggal naa ko kër. incha allah ñaar yi nii. ma France ma dara ci xasde dong laa ko yaakaar. di wax nag oto bi. sama papa Serigne Medoune Sey borom tawféex. moom ko dégg. macha allah maa ngi koy wax ne maa ngi koy xaar. Mhm. incha allah maa ngi koy xaar bu baax a baax oto bi moom incha allah moom laa ko sas. di wax mbokk jullit mbokk ñu jàppale ma si bu baax a baax. allah dañu lay bàyyi nga am eh, lo ñu béggalaatee laataa ñuy àggali parce que bëri na ay question yu ma la bëgg a laaj ñu hmm. eh, dara. nous euh, euh, dem ci publicité yi le journal bi doog a euh, plateau bi c'est Moussa eh, bismillah wa sallallahu taala muhammadin wa مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وزعبي كما ملا الأقداح اللهم بقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في التكريم وعلى آله وصحبه آمن من به وبهم عليه سلام عليه وعليهم رضوان كنت لي بما رحم جل أمداه من آب متوبات إليك ويلا عبائك طيب آمين يا رب العالمين وبشر كلية عليه صلاة وسلام بقدام بقدامتها وخيرات والنظر إلى خروفها أخي شكتبت أو خريط أو نزرت إليها إلى الجنة التي وعد المتخون وتلغى فيك مما تتخلى به خلق العين آمين يا رب العالمين ay waxdo alay salaama man bi qad malak wi waxaani bi suhi walik kana bil muna wali qada ikhlasan bi khan masawi walaktu khadiman fim tidak Muhammad alay salatullahi ma ما ولجت خديما في امتداء وسيلتي عليه سلام الله مولي وزافسوي وانا كل ذي علم وزاين ورمبت عن المصطفى في قلقي قايز والوعي وجه وصول واصل واسع sihabun bi nila wa nawasmi wasimun wasilun wasilatun ila khairi rabbi sikru khamalakwi wa karimun wa yadul waqduhu atat bikili siwana. بسواك ناسخ ذا ظلم والسكب ودادي لربي والمخفى وين benn waxtu jot na ma bëggoon bàyyi téléspectateurs yi ak sa bàjjan fatije mu jébbal ñu xibaar yi ñu doog a dellu si àggali jotaay bi sëñ Moussa Seye tey Euh, moy ganuk télévision Futur Média ab tout tank la waye Sénégal yëpp sop ko ci li def ak limu mu mën lépp rek ci ndimbalu ay waajuram nag motax dom boko amé ko euh, ko ci ay loxo yu wóor boo itam nga def la la war ci mom euh, maam Faty xam naa ni bekk nga bu doon sa sago ci kar continuer rek journal sax du am mais malheureusement ou heureusement je sais pas trop priorité au journal ñu bàyyi laak téléspectateurs yi dogo a dellusiwaat ci midi plus bi